rafetlu bu baax teewaay bi ñu teew fii ci Kolda euh, ngir euh, ubbite agence bi ñuy wax Cori microfinance bu Kolda Cori euh, microfinance nekk institution de microfinance boo xam ne dafay joxe ay service de prêt ak yeneen i service boo déggee nag ñu ne microfinance li ñuy njëkk xalaat mooy jigéen ñi ndax jigéen ñi dañ ciy yëngatu bu baax a baax moo tax aussi ñu ngi rafetlu teewaayu ban villageois yi nga xam ne ñoo ne fii seen président nekk ni moom ak mbooleem jigéen ñi nga xam ne jóge nañ moo xam Vélingara jóge nañ moo xam Médina Yoro Foulah euh, loolu ñi ngi koy def ubbite boobu ci contexte li ñuy wax journée internationale de la femme muy journée 8 mars mu nekk journée bu am solo lu tax journée boobu nekk journée bu am solo daf ñuy permettre ñun en tant que jigéen ñu xool taxawaay bi mais surtout xool ca fa ñu jóge ak fa ñu fas yéene dem lan moo ci war a xew ci diggante bi ñuy dund euh, ci yan taxawaay ci yan anam la nguur gi euh, di gën a mën a taxawoo jigéen ñi moo tax président Macky Sall yebal ñu fi ndax euh, boo gisee bi mu jëlee ne secteur microfinance dama koy booleek euh, économie sociale et solidaire dafa am lu mu ci namm ndax économie sociale et solidaire dafa nekk anam boo xam ne nit ki da koy liggéeyee loolu mooy économie sociale et solidaire te anam boobu mooy li nit ki di liggéey benn benn nañ ko àndandoor doon say ndax lépp lu aaju ci liggéey bi mu mën a oyof loolu nag euh, président ne nañ ko xaatim ci loi muy loi d'orientation boo xam ne def na ci euh, faw ñi nga xam ne ñi ngi ci seeni gox-goxaat wala ci ñi ngi ci seeni village toog te mënuñu gis état mënuñu jot ci ndimbalu état ñu mën leen fekk fa ñu ne dajale leen organiser leen formaliser leen ba nga xam ne li ñuy liggéey danañ ko mën sax di wàññi ci alalu réew mi. madame ko gis ne loolu euh, jigéen ñi ñoo ko gën a yëg te jot si crédit xaw daanaka xawoon na jàpp si banque classique yi ñu gis ne 2005 ba léegi daanaka 2005 mooy technique bi ci wàllu SDF est-ce que loolu ak politique bi nga xamante état lal na ko nekk na bi nga xamante ne euh, mun nañ ci am yaakaar ne lu ñu daan jubbee ne euh, waaw xam nga euh, microfinance dafa nekk lu am solo li tax mu am solo mooy li ëpp ci nit ñi dañu amul jumtuwaay yoo xam ne walla day am yu leen di manqué ngir ñu mën a dem ci banque yi pour mën fa wut ay koppar euh, banque yi li muy laaj. pour nit ki mën fa jël koppar bëri na jéggi na dayo ci yenn saa yoo xam ne ku soxla ñaar téeméer walla ku soxla junni pour mën a liggéey looloo tax ñu ne comme banque yi ñi ngi fi ñu teg ci wetam lu ñuy wax microfinance microfinance nag liñ ci namm bëgg ko ci mooy képp koo xam ne jug nga ca anam ba nga am ak ca na mel ak ca la nga soxla donte lu néew a néew a néew la nga mën a dem foo xam ne danañ la ko lebal mu dëppook yow li ngay wut loolu nag bu amee te nga xam ne ñi ëpp ci taaba taaba boobu ci góor góorlu boobu dañ ci fekk jigéen ñu bari day jaadu mu nekk loo xam ne dañ koy yaatal dëgëral ko ba nga xam ne nit ñi ku ne ruq ba nga ne danga ko fa mën a am euh, donte am nañu lu tolloog juróom-ñeenti téeméeru euh, point de service doyul ndax fii ci Kolda Cori euh, microfinance bi nga xam ne depuis 2005 la juddu di liggéey Euh, yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku c'était des services mobiles ñuy daw di dem nit ñi di dem du nekk lu yomb donc tey ñoom bu ñu demee ba mën a tabax infrastructure boo xam ne dina gën a mën a faciliter nit ñi di jotee ci koom boobu ñi nga xam ne dañ koy lépp dafay am solo donc loolu dafay bokk ci li nga xam ne day xeex ndóol mais ak leneen lu ñuy wax formalisation parce que nit ki bu fekkee ne amuloo tur xamuñu buñ la soxlaa fuñ lay fekk mais pour nit ki dimbale la dafay jafe kon pour nit ki xam yow ca la nga ne yaa ngi ciy yëngatu xam nu mu koy nattee daanako du mën a am moo tax ñu ne fow ñu fexe ba ñi nga xam ne ñi ngi ci sér si kuréel yi yu mel ni association yi ñoom présidente am ñu formaliser ko te formalisation boobu nag ak euh, xam boobu ñu war a xam acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci di yëngal koom moo tax président ne nañu def loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire nga xam ne yooyu ma junj yëpp tënk nañ ci loi bi naka lañ ko ci war a defee ba ci responsabilité sociale d'entreprise bi ndax di nga gis nit ku ñëw sa suuf am koom mu ne day ñëw exploiter suuf si am na lu muy comp ci exploitation boobu jox ko waa population yi même léegi loolu loi bi dafa ne ku ko bëggati def boo demee ba jàpp ne war nga ko mën a def danga war a xool léegi dellu waxtaan ak waa dëkk ba seet lan mooy seen préoccupation ñu door a jël ci loolu def ko euh, mu aussi euh, dem ci wàllu digitalisation parce que xarale yi aussi dañ ko war a dugal ci service boobu ndax taux yi dafa war a oyof donte microfinance lu am solo la am na aussi yu ci nekk yoo xam ne bëgg nañ mu gën a baax euh, defin bi gën a baax bokk na ci li ñuy lebee crédit yi gën a wàññeeku niñ koy fayeekoo gën a oyof yooyu yëpp nag di nekk ci waxtaan ak kori waxtaan ceeg système financier décentralisé bi de manière générale kon euh, lii benn moment la rek 8 mars bés bu am solo la pour sargal jigéen màggal jigéen mais jàpp nañ ñu bésu at mi yëpp mën nañ jàpp ne ay bésu jigéen la ndaxte euh, bés bu ne ndax 8 mars dëgg la mooy journée symbolique bi mais tey muy le 7 mars muy yeneen yeneen di bés saa su ne war nañu mën a sargal jigéen màggal ko ndax jigéen mooy jug fajar jigéen mooy yar njaboot gi jigéen moo yor kër gi jigéen mooy dem mooy dikk te lu metti bu ñëwee balaa góor taxaw jigéen taxaw kon jigéen yi moom du 8 mars rek lañ leen di sargal bés yëpp lañ leen di sargal loolu nag sargal boobu euh, wax bi baax na ci mais dafa war a jaar ci jëf te jaar ci jëf mooy instrument ak outils yi nga xam ne ñu ngi koy jagleel nguur gi état bi mi ngi koy jagleel population yi de manière générale mu mën a dëppoo ak ñoom li ñu aajoo moo tax tey ñu ñëw fii Kolda li ñu neex la ndax euh, ku nekk war nga yëg sa bopp ci li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ñëw fii aussi xam lan mooy préoccupation jigéen yi bu ma fi jógee wax naa ñoom président suñu service yi dinañ ñëw fii su ko defee dinañ xool ci yan anam imma jigéen ñëpp dañuy ñëwaat yu Vélingara yu Médina Yoro Fula fii ci Kolda pour ñu xool ban accompagnement la ministère bi di def wala service yi seen bopp dañuy jug pour gën a mën a toucher population yi dem Médina Yoro Fula dem Vélingara ñëw Kolda waxtaan ak jigéen ñi xool ndax dañ leen di defal ligne de garantie ci micro Corip bi agence bi ubbi wala dañ leen di defal subvention yoo xam ne day accompagner association yi pour aussi mën leen jàppale ci li ñuy liggéey parce que ku leen gis xam ne ku leen jàppale dina am impact. ci koomu réew mi te loolu la président Macky Sall loolu lañu sant loolu lañu fas yéene def may remercier présidente di remercier madame le maire di remercier jigéen ñi fi ne ñëpp di wax bonne fête